asalaamaaleykum mbokk yi nga xam ne yéen a ngi suivre seen euh, TV Touba Argentine ak Cheikhul Khadim TV am nañ mbégte tey jii dellu si fii ci Touba Nova Araçá euh, nekk ci euh, waajtaayu journée xasida bi nekk ci troisième édition bi nga xam ne moom la ñu amal fii ci Brazil ñu bëgg a seq yenn ci jawriñ yi nga xam ne ñoo organisé organisé journée xasida bi fii ci Touba Nova Araçá wala boog fii ci Rio Grande do Sul te troisième édition bi ci benn émission bu ñu tuddee 24 heures avant. quatre heures avant xëy na présentateur bi su ci accès dana ko expliquer pour lan mooy 24 heures avant mais liñ ci jublu rek mooy fexe ba ñi nga xam ni ñi ngi ci bitim réew nekk ci yeneen euh, gox yi ñu xam exact ni ñi ngi ci waajtaay ak fi ñu ci toll. xam naa ci kon ci diir bu gàtt dañuy jël kàddu gi jébbal ko Cheikh Sëñ Moustapha Mohamed Fall bu ko defee mu wéyal liggéey bi incha allahu taala. yéen mbokk yi nga xamante ni yéenay suivre seen télévision bii di kuréel Cheikh Khadim TV ak seen télévision bii di Touba Argentine TV leen nuyu bu baax di leen ziar kenn ku nekk fa nga nekk ñu lay jox sa wàccuwaay di am mbégte ak kontante bu baax ci bis bu sell bi nga xamante ni moom lañ jublu muy journée xasida troisième édition ñu ko amal fii ci Touba Nova Araça ñuy def benn plateau boo xamante ni ñu ngi ko tuddee vingt quatre heures avant journée xasida ku ne xam na ni journée xasida bi chaque boo xamante ni jeexal nañ ko ba ci suba ga rek mbokki taal bi nga xamante ñoo nekk fii ci Touba Brésil ñi ngi koy waajal bu déwén ñu gis ni ay weer a ngi nii kenn ku ci nekk sa xel yëpp nekk ci journée xasida bi nga xamante ni ñu ngi koy wàcc rawatina dëkk bi nga xam fi la koy defee muy fii ci Touba Nova Araçá yàlla def na ñu bisi di jàll weer di jàll ba ni 24 moo ci des moo tax tey jii ñu am mbégte di jàkkaro yéen ci seen télévision bii di kuréel Seexul Xadim TV ak Touba Argentine TV bokk def benn plateau boo xam te ñu ngi koy seq suñuy jëwriñ jëwriñ yi ngeen seen ci plateau bi nag ki ne ne suñu loxo ndeyjoor mu jëwriñ Serigne Mor Ndiaye ku ne xam na ko bu Pointe à l'Aigre mu am ku nekk ko xam te ni pëstee fam ku xam na ko ci liggéeyal Seexul Xadim rawatina ci eh, yoonu murit rawatina ci Sénégal yi nga xamante ne ñoo nekk fii ci Pointe à l'Aigre rawatina fépp ci Brésil suñu loxo càmmoñ ñu ngi ci nekkat jëwriñ As jëwriñ As Gazé bu Passe Fundu moom mi nga xam te moo jiite daare fédération yi nga xamante ni ñoo nekk fii ci Rio Grande Sul moom it kenn ko wax kenn ku ne xam na ko ci liggéey Serigne Touba rek ci lay dox guddi ak bëccëg kële ne suñu loxo càmmoñ muy suñu jëwriñ muy Serigne Dia ku ne xam ko fii ci Brésil rawatina Nova Araçá ndax damay wax ni képp koo xamante ni nekk nga fii rek eh, war nga ko delloo ñu ko ndax moo ñu fi jiitu ñun ñëpp dalal ñu ci doxin doxinu rafet boo xamante ni moo tax ba gën a ñime ba am liggéey yi ñu fi def yëpp ginnaaw yàlla nañ ko sant ndax dox na ci jéego rëy ñu koy sant di ko gërëm eh, waxtaan bi nag du leen lu dul leeral leeral ci loo xamante ni muy li ñu jublu muy 24 heures avant journée xasida ndax journée xasida dafa nee loo xamante ni Serigne Touba amul lu dul moom te gis nañ ni fii ci Brésil bii mooy troisième édition bi ñu amal ko première édition bi ñu ngi ko amaloon Porto Alegre deuxième édition bi Caxias do Sul troisième édition bi tey mi ngi am fii ci Touba Nova moo tax ñu bëgg a jël kàddu gi jox ko jëriñ As mu nuyoo ñu doog a dugg moom ci question yi ñu duggam bisimilah jëriñ As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 di nuyu bokk yi nga xam ne ñoom ñu bokkal plateau bi di Serigne Mor Ndiaye ak euh, Baye sëriñ Dia ak Serigne Moussa Fall di nuyu ñëpp di jaare ñëpp di ñaanal ñëpp tawfeex Serigne Touba. jërëjëf euh, jëriñ As macha allah nuyoo bi matal na am na euh, teg na ci yoon ñu jox kon kàddu gi jëriñ Mor Ndiaye moo mu nuyoo bala ñoo jàll. waaw asalaamaaleykum. di ziar mbokki taalibe yëpp di ziar sama jëwri yi nga xam ne ñoom laa seqal plateau bi di dellu di sant suñu borom bi subhaanahu sant Cheikh Ahmadou Bamba mi nga xam ne moo waral lépp di ko sant moom mi nga xam ne heure bi daaw ñu ngi ko doon ñaan bésam bii ñu fekk waat ko ren mu may ñu ñu fekkwaat ko ren nga ko léegi di nga xam ne mooy lépp Serigne Touba te Serigne Touba mooy suñu lépp. kon dañ koy santaat baax a baax a baax di xaar rek ñu développé plateau bi incha allah di rafetluwaat baax a baax a baax toogaay bi. jërëjëf jërëjëf jëwriñ Mor kàddu yi macha allah am na solo matale na ba tey ñu jox kàddu gi sunu jëwriñ sëriñ Dia moom mi nga xamante ni moo ñu jiite nekkoon fii ci Touba Nova Araca bisimilah sëñ bi. asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi leen di siyaar yéen ñëpp tey am mbégte bu baax a baax ci jataay bi. seqal ak suñu jëwri sëriñ As Guédé ak sëriñ Mor njaay bu porte léegi rek ak sëriñ Mouhamed Moussa Fall nga xam ne mbir la bis la boo xam ne wax dëgg am nañ ci mbégte lool ak kontaante sant bu baax a baax a baax ndax liggéeyal sëriñ rek moo waral lii lépp am fi bi wax dëgg am nañ ci mbégte lool wax dëgg fa yàlla moom ñu sant bu baax a baax te amale sa mbégte kon ñu jox la kàddu gi na safaa nga eggali ba si kanam ah jërëjëf jëriñ Serigne Dia macha allah kàddu yi matale na aw na yoon macha allah kon ñu commencé ci waxtaan bi rek ci jëriñ As comme ni leen ko waxee yéen ñi nga xamante ni yéenay seetaan seen télévision bii di kuréelu Cheikhoul Khadim TV ak seen télévision bii di Touba Argentine TV ñoo ngi fii tey ci Novarasa di waajal journée xasida bi nga xamante ni suba ci samedi incha allah le dina août lay am ñu nekk ci vingt 24 heures avant journée xasida bi. ñu fas yéene am waxtaan yoo xam dañ koy seq ak suñu yi ñu nekkal ci plateau bi ndax kenn ku ci ne xam na ni liggéey bi egsi fii mu egsi seeni loxo mi ngi ci biir macha allah loolu moo tax ñu bëgg a seq ñoom waxtaan bi jëwriñ as euh, waxtaan wi li njëkk a wax ak yow mooy journée xasida bi ku ne xam na ni bi mooy troisième édition bi ñu bëgg xam rek sa analyse ci ba mu commencé depuis année bu njëkk bi ñu amee ko Porto Alegre ba fii tey mi amee Touba Nova Touba Nova Rassa lan nga ci gis ci ak yokkute lu gis nañ ni macha allah fépp fu nit nekk rek mu ngi yàkkantee ñëw ci journée xasida suba. waaw kay jërëjëf sëñ Moustapha gannaaw bu nu sante ak di ziare mboolem ñi nga xam ne ñëpp ñu ngi nuy seetaan eh, di wax ne laaj ba nga laaj laaj bu am solo la santaat yàlla bu baax ndax nee naa la bi mooy troisième édition ñu koy def defe nañu ko Casillas defee ko Porto Alegre bi mooy troisième édition bi di Nova sax jàngat bi nu ci am nag xam nañ ne am na yokkute bu baax a baax. ndax bin ku njëkkee def dafa yamoon rek ci nation euh, maam ci ci biir euh, Rio Grande do bi waaye defaat nañ ko ku ne xam ne deuxième édition bi yegg na ci euh, national ci biir Brésil gépp troisième bi noonu lañ gis ndax gëm nañ ne mboolem li 27 état ci biir Brésil danañu teew ci sourna xasida bi kon loolu yokkute la yokkute it gis nañ ko ci mboolem organisateur bi ak lépp loo xam ne rek lu jëm ci bis bi la gis nañ ci yokkute am amam solo si Moussa jërëjëf euh, jëriñ aas wax nga dëgg loolu moom lu am solo la waaye ñu gis ni dajaloo mbooloo dafa yombut waaye rawatina nit ñoo xamante ni doonoo dëkk dëkkin boo xamante ni yu sorante la waaye gis na ni Rio Grande Sul comme ni nga ko waxee euh, première édition bi dafa maam dafa yemoon fii ci Rio Grande Sul bi deuxième bi ñu ko defee Caxias mu doon national fépp ci Brésil fu taal bi nekk rek ànd ko ñu mu doon lu rafet te loolu muy doon seen xalaat yu rafet ak seen bëgg lu baax ak yaatal te xam ni liggéey seen moo ñor ñëpp am ci mbégte ñu ci deuxième édition bi Casiar nit ñu bëree bëri bëri woote nan bi mu jàllee di sant taxawaay bu rafet bi nga xamante ni yéen ñi jëwriñ taxaw ngeen ci ba mu réussir mhm. loolu moo tax ñu bëri bëri yàkkant bi ne Nova Araçá moo ko organisé tànk yooyu lan aw mhm. mais ñu bëgg xam yéen ñi yow mi nga xam ne yaa jiite fédération daara Rio Grande Sul yi nekk fii ci fii ci Brésil mhm. naka ngay def sa diggante ak daara yi nga xam ne yéen fi nekk communication bi ba liggéey mel ni mën a taxaw waaw kay jërëjëf sëñ Moustapha laaj bi am na solo macha allah Euh, comme ni ma ko waxoon rek mooy gis na nañu yokkute boo xam ne ni euh, ñun ñëpp xam na ne yokkute am na euh, ni ñu def nag ba jokk ak bokk jëwriñ yi liggéey la boo xam ne dañ koy jaayante ak Serigne Touba ndax groupe yi nga xam ne am nañ ko mi WhatsApp bi wala communication bu mën am rek la ñuy fexe ba kenn nga fa nga nekk nga xam ne jëwriñ nga fa waaye Serigne Touba nga fa nekkal loolu moo na boole bu ko def ñuy waxtaan di amalit ci ñetti weer yu nekk ay réunion yoo xam ne danañ ko amal ak mboolem jëwriñ yoo xam ne yaa ngi ci biir Yougane Rassoul bi su ko defee ñuy waxtaan di xool suñuy taxawaay ndax it loolu li ma ci eh, li ma ci gaaw dugal ci biir rek mooy mbooloo yi eh, ñu tudd ko daayira daayira mooy wa'tasimu bi hablillahi jami'an rek loolu rek la mooy mbooloo mu dajaloo ànd fas yéene liggéeyal suñu borom ndax ja dajaloo jàngal xuraan jàng xasida eh, waxtaan ci sëriñ bi saafonte sottantey xalaat loolu Sëñ Tuubaa dañu ko digal kon dafay loo xam ne loo xam ne lu solo la eh, jokko gi ni jokko bokk jëwriñ nag mm, mm, yombut ndax réseau bi dafa yaatu ba pare dëkk yi xaw a sore waaye teewul nag jëwriñ yi ci seen ñoom seen pësteef ak bëgguñ bëgg Sëriñ tubaa ak lu leen liggéey bi jaral eh, tax bu ñu wootee bi ñoo ñoom ñëpp teew ñu bokk toog ànd waxtaan ba ku ne xam ne surna xasi bi rek boo xoolee réunion bi ñu mujj def ni rek ci woote surna xasi bi diggante bu gàttal ndax mutu un mois rek ci lay toll waaye boo xoolee tey nii nga xam ne mooy ni lañ ko organisé ak ñoom nu ñu teel a ñëw financé moo lay xamal ne liggéey sëñ Tuubaa jenn lu na wax dëgg mais damaa bëggoon a xam ndax organisation bi day laaj chaque trois mois ngeen di daje wala da ngeen def weeru jot ngeen daje fenn ndax wàcc ndax ku ne xam ne journée xasida nekk na loo xamante ni du lu yomb. ndax ab daare rek pour nga dajale nit ñi du ñu jëf waxtu foo xam te ne ay ay état état ñoo fay dajale naka naka la naka la mobilisation bi demee noonu seen bii ngeen def weeru jot ngeen daje wala da ngeen am ci naka ngeen di daje pour mën a taxawal bis yu mel waaw dañuy def euh, trois mois yu nekk ñu amal réunion boo xam ne dañ koy jàpp ci benn dëkk suñ ko tey ci bi dëkk bu ëllëgee ñu ko benn dëkk loolu ci la ñuy euh, ci la ñuy profité fekk jëwriñ su ko defee ak mbooloom waxtaane waale ak ña nga xam ne ñooy ay dëkkandoom su ko defee ñoo xam ne noonu mooy doxee fédération bi waaye teewul nag ci biir groupe yi nga xam ne muy whatsapp yi yeeg ak bépp communication bi ñu am noonu la ñuy def ci guddi gu nekk bu ñu liggéey ba wàcce wara a dallu waaye dañ koy jaayanteek Serigne Touba di jokkoo di waxtaan ba lépp lu ñu bëgg tënk ci noonu la ko tënkee incha allah. jërëjëf euh, jëwriñ As macha allah kàddu yi leer na macha allah aw na yoon kon ñu jox jëwriñ moor Ndiaye mu ne suñu ndeyjoor nekk pot à l'Aiguille comme ni mu ko waxoon rek dafa liggéey liggéey bu am solo kon jëwriñ Mor yow fi ñuy duggee mooy dayo dayo journée xasida dayo journée xasida ndax gis na ni première édition bi fam yemoon deuxième édition bi dafa yokkuwaat ni mbiri Serigne Touba amul tànk ginnaaw tànk kanam léegi mais dayo journée xasida lañ bëgg a xam fi mu toll fii ci euh, waaw xam naa damay dellu ginnaaw tuuti rek ndax euh, Porto Alegre laa féete Porto Alegre yi am na jëwriñu daayira euh, ma féete si association bi xam naa soo ne association ñu bëri déjà am na fu ñu visé que ne loolu mooy association mooy kuy liggéey si wàllu social kuy liggéey si wàllu administration mais daf sama wàll man personnellement dafa am lu ko jiitu muy damay taalibe Seexul Xaddim mu teg ma si mission bi ma ko koy bayal euh, loolu moo ma fi indi tey moom ma toogloo si plateau bi euh, journée xasida nag da nga ko je da nga ko wax léegi borom xasida yi mu Cheikhul Khadim ay mbiram lépp kanam la jëm soo xoolee premier édition ba ni mu demee ñu tënk ko si bés yu néew a néew mu dem na mu demee woon nga ne déwén daaw ngeen gis na mu demee ren yéen ko wax dem na ba au niveau national te leer na ma ne au niveau latin la lay lay lay jëm soo moytu incha allahu rabbi structure bi soo xoolee montage bi ak première structure ba nga gis que ne wute na kon daal lépp lépp lépp muy point yi ndaw yi ba point yu mag yi lépp dafa am avancement ba nga xam ne dafa jéggi dayoo bu gaaw gaaw si diggante ñetti at ñuy ñaan euh, borom xasida yi xeeb dool yi te gëm naa ne incha allahu rabbi kanam la jëm. comme noonu nga waxee expérience bi itam ndax. defe nga ko defee bu njëkk hmm. ndax defe naa ni lépp looy def rek bu njëkk ba du ñàkk mm-hmm. ay tekk-tekk ak manquement yu mm-hmm. mais gis nañ deuxième édition bi mu ñëwee Kasia mm-hmm. da ko gën a renforcer lépp loo xamante ni fay la woon rek dafa gën a yokk troisième édition bi Nouveau Arata macha allah gën a gën a jëm kanam kon naka ngeen di def ci liggéey bi naka ngeen di def ngeen di ba liggéey boobu di gën a jëm kanam waaw euh, sant la xam nga actuellement dañu nekk si euh, époque ba nga xam ne mooy de communication yi dafa dafa dafa dafa doy waar dañu am boobu facilité am boobu sens aussi profité aussi di si liggéeyal borom Touba euh, li yéen a ngi koy wax nii léegi euh, mais li ñuy fàtte rek mooy kanaal yi nga xam ne yor nañ ko mu comme yi ni ñuy jokkoo nii muy Touba Touba Brésil ak Touba Argentine ak euh, kuréelu Cheikhul Khadim ak yeneen kanaal yu ni mel ñu bay seen waar ci yoon ñoom it jàppale si yi nga xam ne moom la ñuy liggéey pour mu àgg fi mu war a àgg kon pas du groupe WhatsApp bi rek mais yéen it aussi am na waar wa nga xam ne yéen a ko siy bay macha allah rabbi mu yombal ñu baax a baax a baax liggéey bi ah. Mm. wax nga dëgg parce que loolu bu ñu waxee sax comme dañ ciy préparer di nuyuwaale waa Touba Brésil TV ndax mm. gis nañ ni ñoom it taxawaay bi rafet na taxawaay bi naqar bi mm. xam na ni liggéey Serigne Touba rek ñun ñëpp moo ñu tax a jóg te kenn ku ne fa nga nekk yaa ngi koy defee na mu waree kon ñu leen nuyuwaat au passage di leen ziar waxee jëriñ Mor loolu dañ ci am solo ndax gis nañ tamit am na jot yéen a gën a avancé ci mhm. communication bi surtout mhm. lépp lu amul communication du mën a dox mhm. mais naka ngeen di def yéen yéen ñi ni yéenee doxal journalisme exécutif yi ndax ku ne xam ne du lu yomb ci yéen ak diggante ak autorité yi ni ngeen def ba lépp mën a jaar yoon bu ngeen sartoo jaar ci yoon ba doo leen wàcc benn yoon ba li ngeen ko bëggee da ngeen ko amee ndax réew mu ne ak say droit yu waaw dañu nekk dañu nekk si réewum nasaraan xam ne aussi euh, li nga xam ne moom ngay liggéey bi ni ngi koy doxalee Sénégal ak ni ñu koy doxalee bitim réew bokk ndax dañu nekk ak suñu nawle malgré que ne bokkuñu yoon ñu liggéey mais suñu nawle lañ euh, te kenn ku nekk xam na ne liggéey Serigne Touba dañu ko soxla aussi au niveau international soo nekkee si réew ñun li ñuy li li ñuy li ñuy incarné rek mooy jéem à chaque fois ñi nga xam ne ñoom ñu seqal muy autorité yi njëkke si ñoom ñoom lañu ñu seqal réew à chaque fois li ñuy def jéem lañ ci ubbi porte ndax suñ leen ci ubbilee porte loolu mooy waral population bi aussi xam si li nga xam ne moom la ñuy dox Euh, tëgg yaakaar naa que ne fii ak i at bi ngeen xam li ñuy wax que ne liggéey bi liggéey Serigne Touba la mais incha allahu rabbi Touba bi aussi dañ si war a bokk umpul leen ñu ngi euh, taxawal lu mel ni kër Serigne Touba te li tax ñu koy taxawal wàll woo am na si doole muy liggéey ba nga xam ne dañ see bëgg a boole carrément muy Touba bi nga xam ne ñoom lañ see xar réew mi kon euh, autorité aussi comme ni ma la ko waxee ñun ay taalibe lañ njëkk loolu Serigne Touba daf ko def may ñu aussi ñu neexook ñi nga xam ne ñooy autorités locale yi ku ci mel man di liggéey ñoom à chaque moment loolu daf ñu facilité aussi yu bëri suñ ko bëggee si ñoom incha allah di ko di ko am xam naa daal euh, am nañ ci nar wa nga xam ne fas yéene nañ ko see bay gëm nañ ne fiir dem incha allah di ngeen gis que ne lii lañ doon wax ren ndax lijjanti bi dox diggante yéen ak autorité yi nekk na loo xam te ni yomboon na pour mu mën a taxaw ndax nit ñoo xam te leen culture mm-hmm. religion ñu mhm. ngeen xëy bëgg leen am yoo leen tegal yoo xam te ci wàllu seen diina la ci mhm. wàllu dem ak dikk te xam ku ne xam ni rassemblement fu mu am rek tubaab mhm. dañ leen di bàyyi xel dañu doon am mbooloo moo xam toujours dañuy daje ndax yomboon na ci communication bi pour mën a lijjanti waaw ñun ñun comme ni ma koy waxee rek ñun Sénégal euh, dafa am don ba nga xam ne yàlla daf ñu ko may mais avant ñu egg si yow rek déjà suñu suñu manière bi nga xam ne moom la ñuy doxee moom la ñuy waxee moom la ñuy soloo daf lay daf lay daf lay daf lay xëcc kon su boobaa dafay yomb que ne li ma xam ne moom lay lay incarné dafay yomb ma am ko si yow tey soo xoolee ñu si bëri tubaab yi ñoom ñoo lay woo di la jéem a laaj looy dox ci looy wax ngay topp kan la borom photo bee kan la ko defee yow nga wax leen ko loolu amuñ amuñ problème si wàllu macha allah. waaw ñu gis ni comme comme ni nga ko wax rek. duñ am problème ci wàllu yooyu mhm. waaye yéen tamit macha allah tamit war na ngeen comportement koo tax mhm. bis bu loo leen bëgg ci ñoom day yomb mhm. ndax comme ni nga ko waxee rek duna xas li nga xam te ne def nañ ko bu njëkk quartier ni mu demee woon mais malgré deuxième bu ñu ñëwee tamit euh, quota léegi tamit noonu la demee jaar yoon kon moo tax euh, xëy na wanin bu rafet doxin bu rafet bu ngi leen wan moo tax loolu du jëf ci ñoom kon kon lu ñu def lu du jox jëwriñ sëriñ sëriñ moom it euh, sëriñ sëriñ Diaw sëriñ Dia mu ne fii ci jëwriñu Touba Novarasa moom kàddu yu ñu koy laaj rek lenn la mooy bi nga xamante ni yëg na ni nu saa moom mooy organiser journée xasida troisième édition bi lan mooy yëg-yëgam. waaw sëñ Moustapha loolu day am na solo loolu yàlla yëg-yëg bi ñu ci am de moom mooy mbégte ak sant santaat Sëriñ Tuubaa bu baax a baax ndax ab dëkk bu ci nekkee taxaw di liggéey di jaabu yàlla di dundal Sëriñ Tuubaa bi dem ba gis ne ñoo war a taxawal bi si xasida bi fii ci dëkk bi. mu nekk loo xam ne moom lu am solo ci ñun mbégte moo xam ne moom am na fu mu commencé mais amul fu mu yem waaye ñu gis ne Novarata day dëkk boo xam dëkk boo xam ne turam fa mu egg jëmu ji egg fa day dëkk mu ndaw hmm. te loolu li ko waral dama naan seen pëtëf la rek liggéey Serigne Touba seen pëtëf la mm. ci yoon yi mm. ba tax na képp koo xam te ni yaa ngi fii ci Brésil bi nga yégéen ni Novara Sam moo ko organisé da mm-hmm. nga sawar ngir ñëw si mm-hmm. ba bëggoon a xam sa diggante yow ak autorité yi nga xamante ni mm-hmm. ni ma ko laaj Diori moor mi ñi nekk fii ci a Sam naka la demee ba tax yu mel nii saa mu ko bëggee ba ci màggal wala lu man doon du doon benn problème alhamdulilah alhamdulilah ñu santaat yàlla bu baax ndax li sëñ Mor daanale foofu lay commencé ndax li am solo ci aw askan mooy ak doomu aadama yi nga xam ne suñu borom def na ñu nekk fi ci ne war a sax am na lu leen suñu borom ci wàllu doxalin ak gisin ak jëfin muy ci njàngale Sëriñ Tuubaa muy ci yar yarba ak teggin ya ak képp kun jëflanteel ku nekk suñu la wanee ginnaaw da nga daw toppaat seen ginnaaw ndax rafetaay ak matale ga fii ci dëkk bi nekk fi nekk ak suñu diggante autorité mu rafet lool ndax lépp loo xam ne soxla nañ ko ci ñoom dañuy ubbi seen bunt ci nam gën a rafet ak gën a yaatoo di gam nekk loo xam ne mbir te bu yaatoo lañ ci gis ni tamit comme ni nga waxee Nouveau Rafah fii ñu nekk ay ay mbokk taal bu nekk lépp loo xamante ni sëñ bi soxla na ko ci wàllu ñu jëm ci màggal Tuubaa wala gàmm wala lépp lu doon ba ci sunna ak lépp pësteef gën ci ànd goo xam ne lépp loo xam ne yéen ñi xam ne yéen mhm. day doon lu yomb loolu Sénégal yi nga xam te ñoo nekk ci Nouveau Rafah mhm. di taal bi Sëriñ Tuubaa naka la demee seen diggante alhamdulilah alhamdulilah li newaan li am solo ci ci ci njiit moo nekk njiit ñi nga xam ñoo nekk nu war a sa dañoo uf njaboot bi jiital leen teg leen ci yoonu siraatul mustaqim ñu ko Sëriñ Tuubaa jàngale lépp lu mu doon nekk ñu koy jëfe joxe leen doxeen boo xam ne li ko Sëriñ Tuubaa rëdde woon ci noonu la ko ni ñu tege nit ay murit yoo xam ne comme Sëriñ Tuubaa lañ Sëriñ Tuubaa dong ñu ñor leen saa yi bu ñu leen neen bisa mbirum Sëriñ Tuubaa gi kenn ko def ca loo man ak loo mënul ngir Sëriñ Tuubaa kon wala sa mu ngi noonu la ñuy doxe alhamdulilah jàll ci sëñ Atas macha allah egg moom waxtaan nañ baax maasala ci sëñ sëñ bi leeral yi ndax da nga yow ni nga ko wax rek yow da nga sunu jëriñ joo xamante ni fii ci Novarata képp ki Sénégal gu fi nekk di fi liggéey wala mu nekk fii di fi nekk ñu naw lool la war na la ci sant bu baax ndax yéen fi jiitu comme ni nga ko naan waxee rek eh, teg la boo séen rek bu jiitu bu jubee rek ci topp rek noonu rek la mën a def kon luy def di la sant bu baax eh, jëriñ As li lay li lay laajaat mooy organisation bi nga xamante ni ba tey ci wàllu organisation ndax ku ne xam ne dajale mbooloo yombul. Mm-hmm. waaw gis na ni journée xasida bii mooy troisième édition bi. Mm-hmm. mais ñu bëgg xam ñu bëgg xam fan ngeen bëgg jëme jëmee na xasida bi ak seen seen seen seen initiative lan la ci fan ngeen ci bëgg a jëm ak bëgg a yóbbu. waaw ah, sëriñ Moustapha li may eh, njëkk a leer rek mooy jubluwaayu fédération bi mm-hmm. ndax jubluwaayu fédération bi dafa am ñetti mbir yu ko tënk muy. daayira nga xam ne ñoo boole seen bopp waaye dellu ci social waaye dellu ci seen xasida waaye loolu lépp dafay tënku rek ci dama waxoon ne mbooloo mu booloo te yàlla rek booloo leen ak sëriñ bi la waaw kon loolu mooy li nga xam ne moom moom mu njëkk euh, organisation bi nga xam ne moom lañu am wax dëgg dal na suñu xel lool ndax wax naa la ne nit ki lu mu jógee démb mën na ci jàngatee te defe naa bi muy troisième édition bi kon jàngate ci bari bari ba ñoo ngi góorgóorlu ba Euh, fas yéene lépp loo xam ne daaw njuumte la ci wala loo xam ne bokku ci ñu fas yéene ren ji incha allah ci bokk ñoo ngi ci ànd ak ñi nga xam ne ñoo suñu président organisation ñoo ngi ci ànd nga xam ne ñooy waan warasa te am ci ñoom yaakaar ak kulti bu wóor nag ndax bàyyi seen tudd na ko léegi seen njàmbaar ñoom dafa dafa jéggi dayoo waaw moo tax jàpp nañu organisation moom du am benn benn loo xam ne jàpp nañu dinañ ci am lu ñu xare ndax bi ñëwee ba léegi liñ gis lépp wax dëgg yàlla am dal na suñu Euh, jërëjëf euh, jëriñ as kon ñu ñu jox sëriñ Mor moo bu ñu waxee journée xasida wax fédération tudd yee grand sul suñu xel dina dem ci Cheikh Abdoulahan Mbacke di ko ziar bu baax Mbacke Bal ndax liggéey na ci liggéey bu rëy rëy ba tax fi mu egg si mu ànd kook ñoom jëriñ as mi rafet na lool kon ñu ngi koy ziar bu baax a baax Mbacke euh, sëñ moor ñu jox la kàddu gi bëgg laa laajaa yow ci maanaam waaw comme euh, ni ma ko waxee woon rek euh, dañuy delluwaat tuuti ndax maa ngi koy wax léegi gars yi euh, fii jaar naa fi 2009 lu baras def naa fi 3 mois mais 2009 ku ne moon Sénégalais dina fi teg tànkam ba du baa Bamba di fi am journée xasida nga ne loolu mu ko du am mosuma ko xalaat mu leer na la kon liggéey Sëriñ Tuubaa moom yéeme na yéeme na yéeme na journée xasida bi ni ma la ko waxee léegi xam nañ ne mbiru sëñ Touba xasida dafa jeexal wax xasida dafa tëj làmb kon kenn abu nattam leen ni mbooloom loo gis ren lu déwén di nga gis ñett ñettam wala ñeentam wala fukkam kooku dafa ma leer di delluwaat ci yéen waanu war a sax ngeen ay jàmbaar yi nga xam ne soo déggee tur yi dëkk bi da nga naan tur yi rek soo ko déggee danga naan fee la fa nekk ci ay mbir kenn xamul nu mu toll muy ay exemple ba nga xam ne day wane que ne mbooloo nombre bi amul solo mais staff Pastef bi moo am solo rawatina ngeen ay murit dëgg yàlla gis nañ structure bi euh, gis nañ aussi soo xoolee yéen a ngi fi occupé ñaari saal yi nga xam ne saal bi ak saal bële saal bu nekk dayoom kenn xamul nu mu toll di lu yéemee yéemee yéem delloowaat bi ci si turu sama kilifa di sëriñ di leen ci félicité bu baax a baax a baax di ñaan bur yàlla yokk leen kàttan googu bu ngeen euh, liggéey boobu ngeen seen ko jëmale ci kanam incha allah jërëjëf jërëjëf euh, Serigne Mor Ndiaye bu Potat léegi ñu jox sunu Serigne sunu jëwriñ euh, Serigne Serigne Dia mi nga xamante ni mooy suñu jëwriñ fii ci Novarasa mu tàggutoog mbokki téléspectateurs yi nga xamante ni ñooy seetaan kuréel Seelu Xadim TV ak ñuy seetaan Touba Argentine TV mu tàggutoog mbokki taalibe waaw sëñ Moustapha léegi nag dama koy commencé sama tur jiital ci Abdou Salam ak as bi nga xam ne moo jiital fédération ndax waa na war a sa lii sañ Mor Ndiaye wax rek moo fi nekk fi tur wi egg jëm dëkk bi tollut noonu waaye nag passé fu nit ñi ak taxawaayu murid yi moo fa moo yóbbu loolu moo fa yóbbu loolu dëkkam noora sa même ñi nga xam ne ñooy tubaab yi nga xam ne ñoo dëkk ci dëkk bi dañuy dem ba dañ koy wax mais ñun suñu nekk ci dëkk ak ni ñu fiy dundee yóbbu na tur dëkk koo xam ne nii même ñoom ñi nga xam ne nation yi dëkk bi mënuñu ko woon loolu ñu sant yàlla nag baax baax a baax waaw sant sant na sant daal mënut a wees sant waaw sant mënut a wees na dëgg yàlla jërëjëf jëf sama kàddu gu mujj sëñ Moustapha dama fàtte loo xam ne mm-hmm. euh, xaw su ko fàttee ndax sëñ Mor moo ko fàttali léegi muy sëñ Abdoulaye Mbacke mi nga xam ne euh, tuddu na ko te koo xam ne wari su ko fàtte ndax gannaaw yàlla tey fédération bi moom moo jug ay tànkam ndox ci ay jéego ba daayri mën a booloo daje kon ñoo ko nuyu à passage waaye di ko jaare di ko ñaanal yàlla na tawfiixi maam yëpp di sëñ Tuubaa wàcc ci kawam euh, bi ci topp rek ma koy tëjee mooy di soññaat sama bopp waaye di soñño mbooloo mi nga xam ne ñëw war ñu ci surna xase bi ci comportement yi nga xam war nañ ko yore ndax it ab dëkk ku fa ñëw fekk fa liggéey ba def boo xam ne eh, kilifa gu mel ne Baye Serigne mi ak yéen ñi fi jiitu mm-hmm. ngeen liggéey ko mu rafet lool defe naa waruñu ñëw lenn loo xam ne di nuru lu saboté wala lu tax buñu fi jógee ñoom ñu yeb leen kon waruñu ko def ndax bis bi ñu ñëw mooy sunna xasida mm-hmm. te weesuñu ñetti mbir mooy dajaloo saafante jàng alxuraan jàng xasida te yooyu yëpp Serigne Touba ko moom nag ndax moom moo xam ne bu dee alxuraan mm-hmm. na jaani yàlla mun silo bil xuraani xataa xalutu ma du samaani bu dee xasida it nee na karamati xatu yat yi sama karaama mi ngi ci sa xasida yi kon defe naa loolu moo fa dajale mboolam yépp te tënkan naa ko léegi ci bu njëkk ne mooy wax tasi ba fi laa jëmee moo fi nekk te it jul yëpp ay kon noo ngi sant ñëpp di ñaan ñëpp ñëw ci jàmm waaye dellu ci jàmm waaye it ñëw ci comportement bu rafet ba buñ fi jógee bu ëllëgee ñi nga xam ne ñooy waanu war a saa lépp lu ñu bëgg rek ñu mën ko daal di def ëllëg euh, maam noroom nañ ko fo insha allah kon jërëjëf sëñ Moussa jërëjëf jërëjëf i As mi nga xamante ni moo nekk passe fu ba noppi moo jiite daayira fédération yi Rio Grande Sul euh, di ziar baax sunu jëwriñ tamit di ko di ko contenté ci wax dëgg yàlla taxawaay bi Serigne Mor Ndiaye mi Porto Alegre ak euh, sunu jëwriñ ji Serigne Dia mi nga xamante ni moo jiite Sénégal yi nekk fii ci Novarasa di ziaraat bu baax a baax mbokk yi xam ñoo ñu seetaan ci kuréel Seelu Xadim TV ak di ñu seetaan ci Touba Argentine TV di am mbégte lool ci jataay bi nga ànd ak ñun di leen wax ni. bu leen bu leen bàyyi ñun ak yéen la fii ba suba incha allah rabbi lépp loo xam xew na fii mën ngeen koo topp ci kuréel Seexul Xadim TV ak Touba Argentine TV dara doon ci raw incha allah wasalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu.